d' abord fi ñuy commencé mooy euh, rappel bi nga xamante ni wala boog itam fàttaliku gi nga xam ne doon nañ ko fàttaliku kenn ci kenooy euh, l'islam kenn ci kenooy démocratie ci Sénégal kenn ci kenooy liberté ci Sénégal kenn ci kenooy li nga xamante ni moo di liberté d' wala comme ça mu di El Hadji Sidi Lamine ñas bi nga xamante ni euh, bis ni ki tey yemoo nag le 4 décembre 2018 la fi bàyyi ko woon Euh, juróom benn at ci ren ñu koy fàttaliku ñu jaare ci li nga xam ne moo di occasion bi ñu am ak yéen euh, feeñalaat li nga xamante ni moo di suñu suñu suñu suñu su suñu naqar wala bëgg itam suñu mettitlu ci dëddu gi nga xamante ni dëddu nañu ko waaye itam ñaan borom bi fàttaliku gi nga xam ne ñu ngi koy fàttaliku mu doon loo xamante ni dina doon lu koy dolli yërmande waaye tam dolli ko li nga xamante ni moo di ak leer ci fa nga xamante ni la tëdd ci euh, dëkkub way juram wala bëgg itam maamam di ca Kaolack fa nga xamante ni moo di lew na Alaaji Sidy Lamine wax ci période bi nga xam ne la Sénégal toll nga xam ne wax dëgg yàlla euh, buñ koy fàttaliku mën nga ne symbole lañuy ñuy ko waaye itam ñu ngi fàttaliku jëmm joo xam ne mën nga ne daanaka ñi koy ko tey doonul sax ñu koy fàtte amaana dafa doon rek loo xamante ni tur la boo xam ne mënee su koo ñàkk waxee noonu que ku wax El Hadj xam nga ne ndaw yu bëree bëri tey euh, intéressé wu ci politique ndaw yu bëree bëri tey intéressé wu ci seen doxinu réew ndaw yu bëree bëri tey amaana surtout que lu aju ci wàllu média euh, révolution bi nga xam ne def na ko ci jàpp naa ne moo ñu indi ñun tey ci li nga ni moo di xamemteef gi nga xam ne am nañ ko ci ba tax ci xëy di ci gont di ci jëngu ba tax sax am ñoo xamante ni xàmmee nañ ci euh, démb rek esthétique bi nga xam ne maa koy maa ngi koy dugal di ci ñaanal li bind ci euh, première phrase mooy euh, idole bi cest dire que ñun ñi nga xamante ni dañoo doon ay doomu daara ñun ñi nga xam ne peut-être dañuy dàkkantelee doomu soxna donte le ñëpp ay doomu soxna lañ bu ñu amee xemem teefu participer ci li nga xamante ni moo di doxinu réew mi jaaree ko ci côté média wala boog itam jaaree ko ci joxe suñu ay gis-gis nga euh, yi a doon euh, ko doon def waaye itam mu ñu doon inspiré ci da ngay dal ci kaw Sidy Lamine Niass wala boog itam nga dal ci kaw Walfadjri parce que ci loolu loolu nga moon a jaar pour am parce que euh, dama teeloon bokk ci ñi nga xamante ni dama jàppoon ne discours am dafa doon loo xam ne dañ ko war jël euh, respecté ko waaye itam li nga xamante ni moo di gëm-gëmam philosophie dañoo war a fexe ba nga xamante ni lu Sénégal di accepté la parce que accepté nga li muy jëriñ mooy du ñu bàyyi ba mu jógee fi ñu door di ko jëriñoo mais dañ koy jëriñoo te fekk sax moom mu fi nekk di dund te itam loolu euh, li nga xamante ni moom lay joxe comme résultat mooy au lieu que ngay wax nettali nañ ma mais day doon loo xamante ni loo dund ak moom en nga xam ne mu ngi dund jàpp naa ne euh, am am sensu profité ci dund ak moom benn période boo xamante ni peut-être da ngay àndoon ak moom liggéey wala boog itam nga bokk ak moom sax di euh, nooy ci réew mi gis position yi nga xam ne mooy ko doon jël jàpp naa ne loolu bokk na ci li nga xamante ni ñun mooy suñ suñ source d'inspiration bi nga xamante ni bokk na ci li ñu gën a motiver ba tax ñun ñu daan yàgg toog di rêver di xemem euh, ëllëg ak ginnaaw ëllëg am lu ñu mel ko kom comme moom li mu am waaye itam wala boog itam ñu am liberté ci suñu bopp ba fu ñu toll lépp loo xamante ni jëg nañu suñu réew soxla nañ ci pour ñu yëkkati suñu kàddu ñu def ko ak liberté waaye itam ak tranquillité goo xamante ni dañuy jëg ne maanaam suñu axulaay taala la ñuy wax waaye itam wax ko ci respect ak teggin boo xamante ni euh, kenn du ci mën a jëm baaraamu tuuma waaye itam bu dee nitu daara itam beneen côté la maanaam euh, dafa am fu ñu leen euh, catégoriser woon kane yow doomu sëriñ nga wala boog doomu soxna nga daara ja nga jógee toogal sa sijaada yemal ci sa ñaan yemal ci sa kurus mais ni réew mi doxee sa yoon nekku ci ba tax na am na kàmb gu kàmb googu am na ñu bëree bëri ñoo xam ne tàbbi bi nañ ci euh, le fait ñu gëm loo leen ne euh, nitu diine nga am na foo bokk daara nga jógee waroo mën a participer sa waar ci li nga xam ne moo di doxal Sénégal jàpp naa ne loolu benn stigmatisation la ak itam benn kumpa nax goo xam ne am na ñu ko doon def mais nag pour euh, yee ndawu daara bi pour yee ñenn ñi nga xam ne dañ leen doon dese ginnaaw Sidy Lamine daf ci liggéey liggéey boo xamante ni bu am am solo la mais ci côté média tamit daf ci liggéeyaat beneen liggéey bu am solo mooy fexe ba décomplexe ñi nga xamante ni ñoo di Sénégalais yi ak li nga xamante ni moo di acteur de média c'est-à-dire que may wax loolu mooy mën nga gis koo xamante ni amaana ci média la nekkoon euh, à l'époque ci ay jamono da doon doon benn genre messi wala boog itam doon loo xam ne lu extraordinaire la loolu daf ko doon jural ba nga xamante ni day am moom itam décalage comme bi ministre bi am ak euh, les citoyens mais da doon ko jural décalage boo xamante daf koy am parce que dañuy am benn euh, décalage bu sore sori ci ni ngay jàpp benn star nga wala comme ça wala comme ça mais bi dafa euh, changé li nga xamante ni moo di système boobu ba a jox ressource mooy motiver Sidy Lamine Niass ba mu daw ñëw plateau mooy li nga xamante mooy métti sénégalais bi gën a suufee ci Sénégal xaarul nga jox ko euh, xaalis xaarul nga fay ko xaarul nga nangam te loolu jàpp naa ne beneen euh, mbir la boo xamante ni bokk na ci li doolee tax tey Sénégal bu ñuy xool wàllu média nga mën a lim benn nombre boo xam danga lii nu mu mën a nekk nekkee mais li ko dolli wala bokk na ci li ko dolli mooy liberté bi nga xam ne jox na ko sénégalais bu ci nekk même sa xam-xam fu mu mënti toll bul gëm ne yow rek yaa mën a dem mais dafa am looy am am Moustapha am lu mu ni njëriñ lay doon ci li nga xam ne moo di aw askan te itam wax dëgg yàlla euh, rafetlu nañ ko baax a baax a baax donte la ñun ci suñu jëm bopp ACM amoon amaguñ ko at moom amoon amaguñ ko fa mu yeggoon yegguñ fa mais àla kulli alin toujours dañuy faral di dégluwaat ay Eh, discours am di suivre li nga xam ne wala boog itam di xalaataat ci ay position am parce que li tax position yi am solo dëgg-dëgg mooy dafa juddoo ci këru diine doomu maam Khalifa Niass ci sijaadam rek wala boog defee cest ko ne mënoon euh, mën na la fekk fekk mën na la ci fekk sax ba dindi sa casquette bi nga xamante ni suñu borom moo la ko wàccee waale dugal la ci ay kàddu yoo xamante ni amaana ay der yu yàqu lay jur wala euh, moom di ko dénigrer wala boog sant mission a baax ki ko moo taxaw amaana di façon yàq deram wala boog itam comme ça di ko yàqal mission boobu kon encore une fois nañ jëlaat li nga xam ne moo di bi ko doon inspiré dëgg-dëgg ñu fexe ba monté waat ko ci bopp ndaw yi nga xam ne tey ñoo fi nekk waaye itam ñi nga ne ñoo yor télé bi ak rajo di wal fajiri ak itam euh, a liggéeyaat ci li nga xam ne moo jaar-jaaru Sidy Lamine Niass maanaam bu ko jëree sax nañuy am plateau spécial yoo xamante ni wala boog itam euh, émission hebdomadaire wala comme ça yoo xamante ni dañ ciy gën a waxtaanee jëmu ju ni mel parce que euh, Sénégal noonu la la bindoo noonu la baaxoo réew bu naqaree dee dundee la waaye itam dee la léegi nag dee gu bees wala boog itam ginnaaw dund ñëpp dinañ am a sori dañ lay bàyyee ak mbir mi kon di am lu ñuy umpale ci ki nga moo di Sidy Lamine Niass parce que événement yi am yëpp bu ci nekk da nangu ne bu fi Sidy Lamine Niass nekkoon euh, euh, du Macky du fa xalaata yegg si waaye itam report

li tax lu mel noonu am solo mooy dafa am genre colonisation boo xam ne daf ñoo topp mooy bu dee ne nitu tubaab la wala boo tam ci côté tubaab bi lañ lay jàngalee ak di la ci topp dañuy dem jusqu'au bout ci yenn ci ci ci ñenn ñi mais bu dee ne dafa am benn casquette euh, peut-être doomu daara boo yor euh, même buñ la accepté lee sa sa sa sa sa héros ci Sénégal ñaari fan ñetti fan. duñ ko bëgg dépasser parce que dañoo jàpp ne ñooñu war ñoo bokk suñu taarix war ñoo bokk suñu histoire ñun nag ñoo war a góorgóorlu def la tout te incha allah ñun suñu plateforme bopp incha allahu taala fas nañ yéene jëmmul yu ni mel eh, ñu jox ko fi cër bi nga xamante ni warees nañ ko koo jox ci li xamante ni moo di espace médiatique bi waaye war ko koo jox amaana sax ci doxinu Sénégal bi nga xamante ni jàpp nañ ne participé na si waar yu ama am solo maa ngi fàttaliku jour bi nga xamante ni seetlu naa ma toog am lu ma naqari ba samay rongoñ génn mooy jour bi nga xamante ni ci lañ ko mujjee arrêté ci régime président Macky Sall bi nga xamante ni euh, Abdourahmane Camara mu jumul la jógee na prison ñëw toog ci plateau bi di expliquer na ko sii di wax bi mu bëggee julli bi mu yoroon ak maa ngi toog euh, di am benn góor gu may bi ma dégloo ba yegg ci période boobu mënatuma téye sama bopp ba euh, léegi am na sama benn rakku yaay boo xam ne daf ma koy fàttali toujours di ma ko tooñee te waral loolu mooy jamono yooyu ñun jàpp dañoo jàppoon ne Sidy Lamine c'est une symbole ak itam monument boo xam ne saa bu nërmeeloo jàpp nañ ne ñun soxlaatul ñuy des ci Sénégal wala boog itam soxlaatul ñu fi am ay position parce que dañoo gëmoon ne ku ko mën a nërmeelal lu nekk ci Sénégal ti ci valeur nërmeelal nga ko waaye ku ko mën a nërmeelal war nga mën a fexe lépp luy ngor lépp luy dignité mën nga ko nërmeelal et beneen bi mooy liñ ci doon gën a métti sax ci benn côté mooy euh, élan de solidarité bi mu doon war a am toujours ci ñenn ci doomu soxna yeeg doomu daara yi ñu seetlu ñun ci ay jamono doon des bu baax a baax a baax yu ni mel nag nañu fexe maanaam ko ne euro wala boog itam njëriñal kii jëriñ Sénégal mën na bàyyi ko ci école nasaraan bi waaye itam mën na bàyyi ko ci li nga xam ne mooy di daara alxuraan beeg daara beneen bu mu mënti doon kon bu ba njëriñu Sénégal waaye itam sauver mooy njëriñu Sénégal ñu ci euh, profité ci occasion bi di euh, ñaan bu bu baax a baax borom bi yërëm ko te xaare ko aljana ci bu baax a ci barke Yonent bi sallallahu bu ñu jógee foofu taxaw ci li nga xam ne di assemblée